am naa ko solo bu ñëw mu ànd ak moom parce que xam naa xam naa njaay bu baax ah maman dafa dafa dafa dëgër bopp bu heure buy génn ànd ak mag nee naa ko bul ànd ak moom xam naa jikko njaay bu baax a baax a baax a baax maman yaa ngi may tooñ nag booy génne di bu ànd ak nay màgget xam naa jikko njaay solaar la anam sama demoon bitik ba jënd ci ndékki mburoo ñëwul moo tax ñëwaat day màgget ñibbi na depuis démb ci guddi ban day màgget ngay wax benn day màgget ñibbi na hmm. ah déet Ndeye Maguette mu ngi ñibbi nga Ndeye Maguette ñibbi na. fay xanaa doo dégg na te bi dem ci man nag li naan maa bàyyi àdduna waaye man maa bàyyi Ndeye Maguette man. <laughs> man de may wax bu dégg bëccëg naan Ndeye Maguette amul jom ngeen ngeen ma kaw voilà euh, benga. yow kii yeewu benga ah. kaay yaa ko wax Ndeye dem na elle est partie. tu dis tu parles avec qui. ah des nga li ma wax ah. Demna. ta soeur là. waaw Demna. Signal. si non non non non. si si hein. je le cherche xool naa fii xool fi, douze waañ yëpp xool na. zéro. tu as dit que ta soeur là elle est partie encore. on l'a chicoté ici. Elle nous a mis dedans. On a créé une chose ici. Mais est-ce que ça va là Est-ce que sa tête là, ça va wax naa leen ko de. kii la fi yàlla c'est c'est son mari. ñibbi na depuis démb ci guddi. kii moo gis day màgget ñibbi na démb ci minuit bi maa ko tëj buntu ba mu demee. maa ko buntu partiellement. ah xabaar ah, na. mais chez vous là. déet c'est pas chez vous yéen ngeen ma yàq sama sama ndékki. may may ndékki ngeen xas ma ma dem jëli ndey màgget sonn si loolu ñëw. képp nag. ah voilà. Ah, c'est ça. képp nag ñii. Que vous là-bas, ton père ou bien ta mère, vous n'avez pas de problème de cerveau. Il y a suñu suñu famille a pas de problème de cerveau. mais ici mais son habitude là de fou là c'est naturel hein. là? ma bëgg ñu waxtaan. mu xewati. Oh, oh. ñu jéppi nañ ma nag yow. bëgg nga changé. fii àdduna tër tër tër yàggul keroog dem kër fay di ko paaka paaka baaxul doomu góor xëy baaxul fay naka la mën a yow jël sama jabar yóbbu yow buggoo ko dóor sa rakk waaw mais sama jabar la moom rakkam la ah kon bu ñëwee na waxtaan ak man paa muy jël di la yóbbu loolu daal est-ce que tu xam nga ni boo fanaanoo foofu damay taal kër gi. <laughs> eh Maguette boo fanaanoo foofu damay taal kër gi. problème baaxul. je n'ai plus rien à dire. Mm -hmm. seulement un conseil. pour ta soeur là. Mm. il faut l'amener à l'hôpital Fall. elle n'a pas tout sa tête hein. Mm, Peut-être c'est sa maman qui était fou ou bien je sais pas là. Ou bien ton père est fou. Mais vous là, vous êtes qui son mari le bat matin, soir. Il y a quoi Mais vous êtes fou, hein Voilà. Il y a quoi C'est ça. En, regardant ton comportement là. C'est ça, c'est ça. Ah mon Dieu, pardon. Ah bah, maman, est. me Maintenant, tu vas où Tu vas là-bas Baptême. Ngente. Bah, là, là, là, là. Regardez, regardez. tel frère, tel soeur. Bon vent. Bon vent. mais xëy ma ko ba ko gamam nga nga gi man man la nit ñi war a yow est-ce yow bu heure ma wax copine masta. pardon pardon. man dama fi mu ma nii maa Eh? famille de folle famille de fou. man sax damay ragal man man ànd ak ñoom ci dof ki. tu habilles sa sœur là. nday hmm. ma bu ko doon ci njaay bu ko doon hmm. di wal. di ko uh-huh. booleeg man mama Diallo du ma dem. kii dafa dof de.

bàyyil non pareeguma ci ñoom wax naa la nag déggoo nday mënaguma pare ci ñoom lii faaw yoon am ci wàll yoon police paaka foofu ah lan moo tax ñu jël la yóbbu lan moo tax ma la jël di yóbbu pël paaka ak police baaxul da gis ma fa kenn baaxul baaxul soir dara baaxul. fay dina la bàyyi. fay bàyyi na ma mais dama yóbbu natt su ma ñëwee ataaya. yaa ko wax de. waaw. eh bu fa nag. ñu war léegi. ah. ñëw munoo maa muñ de. <laughs>

lépp man. asalaamaaleykum. maaleykum salaam ah ah, ah fay fay fay fay. Sow da ngeen di. fay fay fay alhamdulilah macha allah rek fay. da ngeen di ma coono. ñu ngi fi rek fay. jërëjëf gëj naa laa gis. ah maa ngi fi rek fay. waaye yaa ngi si jàmm rek. jàmm rek. alhamdulilah jàmm rek fay. macha allah yal na jàmm yàgg. amiin amiin amiin jàmm rek fay. amiin amiin jàmm rek. da ngeen def ak coono. ñu ngi fi rek fay. ñoo xale yi. fay baa ñu ngi si jàmm rek. Ah, sëñ Fay. waay. kan mooy maman si kër gi. ah maman. ah mi ngi nii mooy sama soxna bi moom nag voilà moom nag benga nag. benga. benga. benga waaw kon kan mooy benga. sama locataire la mi ngi sama locataire ñaar daal dañ fi yónnee woon convocation. convocation. mama ak benga. ku leen yónnee. Njaay moo leen yónnee woon convocation bi. ñoom lan surtout benga benga benga bul tàjji buntu jàmbur bi yow ah ni kenn ka mais y a quoi eh y a quoi y a quoi Faye y a plainte pourquoi tu frappes comme ça à mon poste je frappe ah, nekk si sa kaw asamaan yaa ko wax. il faut plus me faire ça hein. waaw d'accord fekk faut plus me faire euh, euh, euh, Sénégal mi ngi nii moom la lépp nag moom la lu fi nekk rek mooma déglu ma rek Sénégal damay wax pareegu ma luma wax moma waxna ba sonn nak bi njaay ñewé sama jabar dama ko làq ci ginaaw eh. mu daw do fa ma togal fi yow ma wax bengal da ko rey pa pa paaka la ki bengaan génn da ko non ray ci ke eh. wax waaye ma wax c'est toi qui parle ah, ah? Fay, j'ai dit, c'est toi qui parle. C'est moi qui parle. Tu n'es même pas un homme. Fay, borom keur nga. J'ai dit, tu n'as même pas un homme. Borom keur nga. Xex bi ñun ñepp ko xex. Ya mo na xeex. Xex bi ñun ñepp ko xex. Ba nga gisé pa ka nga daw. Borom keur nga. Déglu ma rek. kii nag convocation la bu xamee ne yow lañ ko jox. Ndiaye moo la plainte. Eh, c'est Ndiaye qui m'a convoqué. Hmm. oui il n'a qu'à amener ça à l'ambassade là-bas. moi je suis un étranger. waaw fula. yow mënoon na fi pas adressé ah à fii lan moo fi xew seen coow bari na trop dégg xew. faut lui demander. à qui. à lui là. à lui sa soxna si ah.

Toi là, Nyokoba, tu n'es pas mon mari. C'est toi qu'on a convoqué, tu es ma femme. Ouais, ouais, dit, mari doit rester ça. Non, quand il y a tu c'est moi qu'on a convoqué. Ah. Écoute, faut pas amener du problème ici. Moi, je procure. je pense que je ne suis pas responsable. C'est à moi de prendre cette convocation. J'attends que tu le prends. Il n'a pas amené ça à l'ambassade. J'ai dit, il faut rentrer dans la chambre. Je ne veux pas de problème ici. Oui. Monsieur, il n'y a pas beaucoup d'esprit ici.

yow yaa seede ne bañ naa jël convocation. man seede wu ma ko ah yow loo seede yow man seede wu ma loolu de yow sa kanam la man seede wu ma xaw wóoru na ko wala jël ko yow nag jërëjëf jërëjëf jërëjëf Sow yow nag hmm. yëpp waxoon naa nga dox nga dox benga yow kay amal ngor dem wuy ji rek benga laa xam noonu yoonam néew ci woon ba mu dugg léegi moom dayaa sob rek moom moom moom si kanam lay dee waaye yow. yow kañ ngay noppi. bis bu ko defee yow sa rakk bu jigéen ñi bu ko rey ay jigéen takku dem indi ji ko yow amoo. yaa a fen kan la indi. yaa mën a fen yow xam nga la laa la bëgg a xamal wax ji day bëgg a bëri xam nga la bëgg a xamal convocation bi dinaa ko wuy ji de mais ñëw naa teg naa sama tànk ci buntu kër gi mooy may nga ma sama baat yow xaw ma ko xamul loolu waaye yow xam nga ko li ngay ñàkk fay da ngay ni mag bu ñuy dab di ñand puusoo paase xay xaw atte woo xeex dangaa fàttali ne ngaa jëloon caay. Ah, moo tax caay ji dinaa ko salaat. ah jëloon ko caay ji dinaa ko salaat. Ah, waaw grand grand grand coow lu bari li yëpp yow la. ñàkk fay mais grand man danga ma décevoir. Ah. gis nga sa soxna si li mu wax lépp dëgg la. yow fii yaay borom kër gi. bu fi convocation duggee yow yaa ko war a jël. yow on dirait grand doo góor quoi. mais c'est vrai convocation ñëw na fi jël ko def réglé ko mu jeex ñun ay locataire dong lañ. waaw yow. waaw. nga ne du ma góor. waaw yàlla yow mi góor yow lu tax sa bosu jabar jëloo ko. xam nga dama tax jëlu ko. moom dégg nga li mu wax nee na elle est étrangère. ambassade la koy yóbbu na dem ak moom ambassade. ah da jaaree Côte d'Ivoire. waaw kii guinéen la. guinéen. yow yaay ah. Sénégalais yaay borom kër gi. Eh, waaye eh, grand. au nom du maman. matal góor matal góor te yow yow yow ñu jot. yow kii yow Seydina muhammad loolu bi deuxième bi bokoy koy du bax si yow dula jik man nak ma togn sama bop xam nga ma togn sama bop man ma fekk ñu takk tubay top ma leen ma top laak sa caay ju franc ji nga xamanteni te koy fo damay sonu ba bëgg a waye tay lay wax ji di neex ndax suma joggé police yow nga may may sama baat ngay def ak sa koppati bu xonk bi ne kuy ndop xamoo sa bop li ngay ñak fay en tout cas nga ngaa bàyyi woon xale góor ma ya baye xalé goor yëpp ñëw top ma parce que ci si caay neex caay yeeran neex saf waaw na nga fexe ba ne deuxième bi na koy eggale léegi nag balaa ngay dem ndax boo dem yow dañ moom egg boo tëj nañ <laughs> benga benga bi laa di nga génne wuñu pause yow leer laa expliqué nag yow yow moom sa problème naa ko rek léegi léegi mu jeex